des internes et anciens internes du Sénégal docteur Fall ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM wante laata loolu sant la gërëm la ci sa disponibilité ginnaaw bi nga nango wuy ci suñu invitation bile docteur Fall dalal ak ci rajo Rewmi FM waaw merci madame Fall ci invitation bi donc comme ni nga ko waxee léegi rek maa ngi tudd docteur Cheikh Fall nekk mm-hmm. interne des hôpitaux en anesthésie réanimation mm-hmm. nekk en même temps de secrétaire général de l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal mm-hmm. di nuyu suñu mbokk auditeurs et auditrices yi te di leen jaajëfal bu baax ci déglu Euh, sant ko gërëm ko ci présentation bi nga xamante ne defal nañu ko euh, euh, docteur Fall dañuy tàmbali rek ci wax spécialité spécialité bi di interne des hôpitaux bëggoon xam rek à chaque fois dañuy dégg interne des hôpitaux wala ancien interne des hôpitaux ci misaal lan mooy internet des hôpitaux. waaw jërëjëf ci laaj bi. Mhm. donc pour tontu ci laaj bi rek di wax ni interne. balaa ñuy ñëw sax ci problème mu interne yeeg problème de Dantec mm-hmm. day baax ñu def benn rappel historique ci lan mooy internat donc internat benn concours la ba nga xamante ne état du Sénégal par le biais de son ministère de santé mu nga xam ne moom mooy ministre tutelle moom moo organiser concours bi mu nekk un concours national léegi objectif concours bi ay étudiants médecine la yi nga xamante ne après seen quatrième année de médecine validé ñoom ils son éligibles à ce concours yaa mun nañ inscrire ci jongante boobu noonu jongante bi nag day recruter ay spécialistes ci wàllu médecine ci wàllu pharmacie ak ci wàllu psychiatrie léegi nag ñi muy recruter c'est pour former leen nga xamante ne après seen formation quatre ans la jàpp cinq ans cinq année bi année de prolongation la mais quatre ans quatre ans mooy mooy mooy mooy mooy durée bi léegi ci diir boobu noonu dañu leen di ci mboolem spécialiste euh, spécialité yi nga xamante ne ñooñu di interne des tànn nañ ko buñ leen former ba noppi dañuy génn ak seen diplôme de spécialiste que ça soit médecin wala mu nekk pharmacien wala mu nekk psychiatrie concours boobu nag état du Sénégal mu ko tàmbalee organiser depuis 1961 donc au lendemain de l'indépendance. 1961. 1961 ah, yàgg na. na mhm. donc ça fait ça des années te mu nekk institution laa ko mën a tuddee mu nekk pacc bu amu am solo lu tax mu am solo ndax mooy permettre ñuy former les futurs enseignants chercheurs jàngalekatu université yi ci daara yu mag yi ak ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci wàllum gëstu la recherche scientifique mhm. donc internat dina fexe état du Sénégal ci wàllu médecine ci wàllu santé mu former ay spécialistes léegi jongante bi nag état bi yàgg na ko organiser comme ni ma la ko waxee chaque mm-hmm. année dafa am benn lim bu muy jël ci médecin lim bu muy jël ci pharmacien ak lim bu muy jël ci psychiatre. Mm-hmm. donc récemment lim bi nekkoon na ay trente mais après dañ ko yokk récemment euh, ci dernier euh, euh, rénovation yi ministère def donc dafa am quarante cinq postes pour les médecins. Mm-hmm. am quarante cinq am quinze postes pour les pharmaciens. Mhm. ak euh, dix postes pour les psychiatres. Mhm. d' accord léegi nag jongante bi nag day concerner non seulement étudiants yi nga xamante ne ñoom ñu ngi jàngee fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mhm. mais yeneen université yu su mel ne bu bu Ziguinchor bu Saint-Louis ak bu Thiès. ñu def ñuy def seen formation léegi nag étudiants yi foofu la ñuy ñëw inscrire pour def concours bi léegi nag à l'issue favorable maanaam bu ñu defee concours ba yàlla def taw tawfeex ñu réussir concours bi dañ leen a tuddee ay interne des hôpitaux te bu ñu waxee interne des hôpitaux mooy koo xamante ne maanaam fiefam dëkkuwaayam bu ñu waxee maanaam dëkkuwaayam bu bees biir hôpital. foofu lay dëkk. nekk au chevet des malades maanaam jege euh, patients yi ak patientes yi. Mhm. ngir faj bi gën a mën efficient ngir tamit ñoom seen formation ak seen wàllu tàggat gën a mën a jaar yoon mhm. nga xamante ne dañuy gën a nekk ay spécialistes yoo xamante ne ils sont pleins génn ak seen diplôme de formation professionnelle mhm. donc loolu mooy loolu mooy internat mhm. léegi nag mënuñu wax internat sans pour ñu wax Dantec parce que tamit problème Dantec bi avant nga ciy wax je dis que il faut être féru d'histoire parce que Dantec hôpital bi nga xamante ne am na cent douze ans Dantec a été créé depuis mille neuf cent dix donc à l'époque Dantec ñu ngi ko tuddee woon l'hôpital euh, des des des des des indemnes hôpital principal moo nekkoon hôpital colonial mm-hmm. euh, euh, Dantec nekkoon hôpital des mm-hmm. donc le Dantec mi ko tuddee sax maanaam médecin la woon foofu noonu ci hôpital Dantec bi mm-hmm. il paraît même que sax Dantec euh, titre bi c'était son titre foncier léegi après moom bi waree ñibbi ci la jël suuf si daal may Hmm. képp ki nga xamante ne dëkk nga Sénégal wala nga dëkk ci sous région bi te bëgg fajo nga ñëw fajo foofu noonu ci lu amul benn jafe-jafe donc hôpital Dantec dafa nekk hôpital bu bu ñu amal solo ñun hmm. non seulement ñun mais suñu ay professeurs yi nga xamante ne ñoom Dantec mun naa xam ni fa lañ màggee parce que fa lañ leen tàggatee bi ñu nekk internet Dantec lañ nekkoon fa lañ leen formé donc Dantec bu soree ci suñu ay xol gën naa sore ci xolu ñi nga xamante ne ñooñu fa gën a yàgg mm-hmm. fa lañ leen formé ba tey yii nañu nekk ay professeur mm-hmm. donc grosso modo loolu mooy internat des hôpitaux donc ah. c'est un concours bi nga xamante ne dañ koy organiser pour former ay spécialistes pour une durée de cinq ans maximum mm-hmm. léegi bu ñu leen formé ba pare ñooñu dañuy am diplôme de spécialiste mais am titre ancien interne des hôpitaux. Hmm. Euh, docteur Fall xam rek ndax en euh, ci concours bi euh, amul beneen possibilité maanaam fay pour def li li li li li di mel. waaw parce que concours bi raccourci la lañ ko mën a tuddee. Hmm. parce que dans les normes étudiant bi dafa war a dem ba soutenir thèse am. Hmm. nekk un postuler pour ñu ñu ko. mu def benn formation spécialisation ci benn domaine donné que ça mm-hmm. soit en anesthésie réanimation en cardiologie en biologie et cetera mm-hmm. mais internat concours la ba nga xamante ne c'est c'était c'est un programme bien défini mm-hmm. médecine dafa am programme boppam pharmacie am programme boppam psychiatrie am programme boppam programme bi nag c'est très lourd cours yi àgg na presque àgg na bàyyi trois cents cours ba ëpp ko wala lu ko ëpp d'accord léegi nag Euh, concours bi programme baa ngi noonu programme bi nag boo ko càmbaree ba ñëw ba def concours bi ba am réussit mm-hmm. yow da ngay commencer sa formation spécialisation sans pour autant nga nekk comme docteur mm-hmm. parce que nekk ko docteur mais concours bi porte la benn issue la mm-hmm. bi nga xamante ne dalay permettre yow mi nga xamante ne yow yaa ko réussir nga def sa spécialisation ci lu gaaw donc mën nañu wax ni ñaari objectif war na tax Euh, étudiant médecine bi def ko wala wala pharmacie bi wala psychiatrie mm-hmm. mooy déjà da koy raccourciral euh, formation médicale day tax mu gagné ay années de médecine mm-hmm. loolu c'est une chose beneen bi day spécialisé wu ci lu gaaw parce que mm-hmm. ay ay jeunes lañ rek ay xale yoo xamante ne macha allah tel nañu am spécialisation bi yaa ngi dégg bi mooy yoon la bi nga xamante ne tamit dina tax professeurs yi tàggat la. Mhm. ci yow tamit nga dem ba war a mën a tàggat ay ñeneen ni étudiants. assurer relève. assurer relève bi nga mhm. mën a pérenniser le personnel enseignant chercheur. Mhm. léegi nag bu fekkee psychiatrie la moom ñooñu dañuy thèse ba pare buñ thèse ba pare dem des psychiatrie seen deuxième années ci li ñuy doog euh, mën a def concours. donc en grosso modo loolu la léegi nag ki nga xamante ne moom bëgg na spécialiser <clears throat> mun na ko def bu dee ko mu tees rek après day dem inscrire ci benn spécialité mu def spécialisation normalement mais boobu à la différence de l'internat ministère de la santé moo lay fayal sa formation. Mm-hmm. di la jox ay émoluments mensuels. Mm-hmm. mais bële bu fekkee dees nga ñoom sax am nañ benn association CAMES maa ngi nuyu seen président bi di jaajëfal liggéey bu rafet bi muy def. waa COMES nga xamante ne ñoom tamit spécialisation bi yow boo nekkee docteur mën nga inscrire ak sa xaalis. Mhm. nga fay ñu defal la sa formation de spécialisation. Mhm. ministère de la santé nag am na ay accompagnement yu mu jël par rapport ak loolu mooy ñii postuler après mun nañ leen am mun nañ leen may bourse bourse boo xamante ne bourse mensuelle la ñu koy jot mhm. durant. seen seen formation. Mm-hmm. mais bourse bi dajul kàpp am na ñoo xam ne nekkul ñëpp ñoo koy am. Mm-hmm. am na ñoo dañ koy am duñ ko am. Mm-hmm. donc spécialisation bi ñaari volets yooyu la soit tu passes par l'internat. nga xamante ne volet concours la ñuy recruter les meilleurs si je je peux me permettre de de le dire ainsi. concours qui est très sélectif euh, parce que euh, ñiy jongante dañuy bëri. programme bi day diis day lourd mm-hmm. waaye ñi koy jàll dañuy néew. Mm-hmm. donc concours bu sélectif la. Mm-hmm. la. internat on peut même dire que ça fait partie l'un des des plus difficiles concours hein, des concours des plus difficiles. on peut citer l'internat entre autres comme ay ENA. Euh, ak yeneen concours yi nga xamante ne xam nañ ko ay magistrature ak yooyu nekk ay concours yu sélectif waaye internat concours la bi nga xamante ne maanaam sélection bu bu métti moo ci am. dafa rigoureuse. dafa dafa rigoureuse. parce que professeurs yi nga xamante ne ñoom ñooy corriger concours bi ñoom à travers seen image rek la ñuy corriger. te prof c'est-à-dire prof yi ce sont des scientifiques aguerris te ku ne wax scientifique wax professeur agrégé en médecine di nga wax rigueur bi muy am. donc kooku bu lay évaluer donc évaluation bi aussi rigueur daf ciy feeñ loolu mooy tax concours bi. nekk concours bi nga mhm. Mhm. Euh, sànq yaa ngi ko doon wax euh, lim nga fi ay nombre quarante cinq quinze ak dix xam naa ku nekk ci ci ci ci ku nekk da ngay am ay pàcc boo xamante ne moom lañ la réserver mais ndax euh, jàpp nga ne lim bi lim bi respecté na li nga xamante ne mooy ratio ndax OMS boo jëlee cardiologue wala radiologue wala wala gynécologue dañuy wax temps de gynécologie destiné pour population bi tey jii eh, d'après yo lim bi fi ndax jàpp nga ne eh, interne yi mëtal ñëw ci Sénégal wërngal këpp sur toute l'étendue du territoire. waaw lim bi moom sooxe na bu baax a baax a baax parce que Sénégal Sénégal dafa nekk dëkk bi nga xamante ne la quasi totalité de la population sénégalaise est jeune. Mm-hmm. Sénégal ay jeunes rek fi nekk. te poids démographique Sénégal mu ngi mu ngi yokk poids démographique bi mu ngi yokk donc études yi nga xamante ne defoon nañ ko par rapport ak pyramide sanitaire bi ak euh, objectif bi nga xamante ne war nañ ko atteindre ci wàllu faj xamante ne chaque médecin wala chaque spécialiste war na couvrir benn lim ci population bi nga xamante ne moom war na leen mën a faj da ngay gis ne état du Sénégal xaw na nekk en par rapport ak loolu parce que médecins yi doyuñu te population bi ñu ngi yokk te médecins yi doyuñu waaye li gën a doy waar mooy spécialistes yi parce que mhm. médecins yi dafa am ay ay spécialistes am ay généralistes mhm. spécialistes yi tamit ñoo gën a néew. ñoo da ngay dem benn région par exemple je peux la région de Kolda nga xam ne récemment seen gynécologue bi fa nekkoon nga xam ne moo nekkoon na seul gynécologue finalement mu ngi mu ngi mu ngi décédé ci bërëbu liggéeyukaayam mhm. ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy koy ñu koy jaalee famille am mais pour dire que médecins yi xaajuñu bay doy. waxuma la nag spécialiste yi. Mm-hmm. lim bi dafa sooxe trop trop trop. loolu moo tax parce que au début dañ doon wax interne des de Dakar. interne des de Dakar. de rek lañ doon yem. mais dañu def léegi expansion yaatal mbir yi parce que Sénégal tamit du dakaar kese. te besoin bi fi mu ëppee doole mooy ci périphérie bi da ngay dem benn gox bi goxaan bi nga xamante ne sori na lool mais benn gynécologue moo fay am. Mm-hmm. alors que day bëri ay village environnant yi nga xam te ñoom ñëpp ci hôpital boobu noonu la ñuy fajoo. foofu la da ngay gis ni kon spécialiste ba fay nekk dafay am charge de travail bi nga xamante ne du ko mën a. abal day bëri trop. juste pour wax que ni soo xam ne léegi nag euh, maanaam euh, solution bi ñu gis ci loolu mooy. internat des hôpitaux ñu bañ ko yemale Dakar ñu def ko internat des hôpitaux du Sénégal. Mhm. moo tax euh, changé nañ changé nañ nomenclature bi nekkatul interne des hôpitaux de Dakar mais interne des du Sénégal. Mhm. léegi comme que interne des hôpitaux du Sénégal pour man état bi war na mën a yokk poste interne yi comme ni mu amee ci yeneen réew yi comme boo demee ay réew yu mel ni ay France am na ne internat day am ay plus de deux cent post vacants postes yoo te ne kenn jëlu ko parce que foofu presque ñëpp ay la ñuy nekk. Mhm. loolu état bi war na mën a def ay ay jéego jëm ci côté boobu noonu pour mën a satisfaire besoin ak demande bi nga xamante ne askan bi ñoom soxla nañ ko ci wàllum faj. Mhm. cinq postes yu en médecine quinze en pharmacie 10 en psychiatrie pour man lii dafa tuuti. waaw dafa tuuti chaque année lii la ñuy rec la ñuy recruter. Mhm. pour man lii tuuti na ci Sénégal. c'est mhm. vrai que am na ay yeneen médecins spécialistes yoo xamante ne bokk nañ ci yeneen corporation lu si mel ni mhm. mais même boo boolee lim yi néew na trop par rapport ak poids démographique gu Sénégal. Mhm. donc bu ñu mënoon yokk lim bi tasaare leen nag ci hôpitaux yi comme que def nañ ay tabax nañu ay hôpital de dernière génération boo demee Touba di nga fa fekk hôpital grand hôpital Cheikh Amadou Bamba bi. Mhm. nga dem euh, Sédhiou nga dem Kédougou par exemple nga dem Kaffrine hôpital yu bees yi nga xamante ne. te jii nii zone boobu noonu maanaam hôpital bi ñu am war na mun a saafara seen jàngoro ci wàll ci wàllum faj mm-hmm. mais comme ni may wax rek faj du hôpital kese faj personnel la il faut que ñu jël personnel bi ñu former leen yokk leen jox leen ay motivation yu yu doy et ñu dugg ci ci ci biir réew mi ci périphérie bi surtout mm-hmm. comme ça askan bi seen wàllu jafe-jafe ci wàllu faj Euh, médecins yi ak spécialistes yooyu noonu mën ko jël en charge. <laughs> Euh, wax nga ko ci sa biir wax euh, dañu doon wax interne des hôpitaux de Dakar mais léegi changé nañ ko internet des hôpitaux du Sénégal changé nañ ñu nomenclature bi mais est-ce que le fait que ñu changé ko rek dafa di dafa dafay dafay expliquer ne que lépp mate na. waaw le fait que ñu changé ko ça juste dire que interne yi yamatuñ Dakar kese ci wàllu formation. Mm-hmm. parce que booy xool université de médecine yi avant Dakar kese la woon mais léegi am na daanaka région yu bëri am nañ am nañ université de médecine. Mhm. Thiès am na faculté de médecine Saint-Louis Ziguinchor am na faculté de médecine donc te faculté yooyu noonu am na ay professeurs agrégés yu fay nekk am na ay assistants yu fay nekk donc c'est très normal et très logique mu war a am ay postes internes yu fa nekk. Mhm. waaye maanaam ay jéego la liggéey la. Mhm. liggéey la. comme que université am na fa ay professeurs yaa fa tabax nañ fa ay hôpital donc bu ñu fa mënee yokk personnel yokk fa ay poste interne yi di dem di dem ci région yooyu noonu ñu leen fay former ñuy génn di liggéey ci gox yu mel noonu loolu dina am njëriñ trop trop pour population bu mm-hmm. bu Sénégal. Mm-hmm. Euh, sànq euh, docteur Fall yaa ko doon wax que seen liggéey euh, maanaam bu ngeen nekkee ay interne pratiquement du ma ne ci hôpital bi ngeen élire domicile mais li ngeen di nekk ci hôpital bi xam naa moom mooy ëpp li ngeen di nekk euh, euh, ci ban euh, bi <clears throat> maanaam moom taalibe la rek taalibe la su ma waxee taalibe mooy dafa am lu muy sàkku li muy sàkku mooy xam-xam. Mm-hmm. bu wér ndax mu mun a nekk spécialiste. Mm-hmm. ci domaine bi nga xamante ne moom la choisir pour ñu former ko. Mm-hmm. léegi moom dans les normes classiquement interne bi ci biir hôpital la waroon dëkk te gis nañu internat ñaari hôpital kese ñoo am logement pour interne mooy hôpitalu Dantec ak hôpitalu Fann. ñoom ñooy loger. ñoom ñooy loger. te normalement da dañu waroon loger ci biir hôpital. parce que bu ñu waxee internat. Mm-hmm. mooy yow fi ngay fi ngay fi ngay yëngatoo fa ngay fa ngay fa ngay fa ngay dëkk. Mm-hmm. te loolu noonu dafa am solo li tax moom solo mooy. dina tax internet bi à n'importe quelle heure dina wàcc dugg service am xool ay malade boo amee cas intéressant surtout la nuit mën nañ ko woo moom mu ñëw ça lui permet non seulement mu jàng waaye tamit mu jëriñ malade boobu noonu. mu nekk wala mu nekk voilà mu nekk proche du patient c'est-à-dire l'interne il doit être au chevet du patient. Mm-hmm. te interne bi comme ni ñu koy tàmbalee waxee rek ci langue nasaraan c'est la cheville ouvrière maanaam moom mooy taalibe bi gën a bi gën a bi gën a présent ci hôpital mhm. non seulement c'est un étudiant boo xam dañ koy former mais tamit buy liggéey di rendre service askanam parce que internet bi day teel a xëy day guddee wàcc internet bi day def ay garde ay garde yoo xam te ne ay vingt quatre heures des fois plus plus de vingt quatre heures parce que tu fais garde le lendemain tu enchaînes jusqu'à l'heure de la descente nga doogu a wàcc mm-hmm. te du tere du sur teree le surlendemain da ngay xëy si. Mm-hmm. bu dee yi tamit da ngay def ay cours parce que parce que taalibe nga buy sàkku xam-xam da ngay jàng da ngay def ay cours. Mm-hmm. mais comme ni ma koy waxee formation interne seen formation qui est pratique. parce que la médecine c'est une science qui est factuelle elle est basée sur des faits médecine du ay wax kese du théorie kese moo tax médecine bokk na ci wàllu wàllu mi nga xamante ne nit ki day génn rek mën liggéeyam parce que enseignement théorique bi daf ciy boole ay pratique léegi interne bi nag moom mu ngi ci mu ngi ci ñaar yëpp mu ci ñaar yëpp tey bu waree def cours day def cours cours bi mën na nekk en ligne mën na nekk cours présentiel mu ñëw fag def cours mm. waaye cours yooyu noonu du ko yàqal dara ci pratique bi mu hospitalière bi muy def te jii ne même grève sax bu amee internet bi il doit pour assurer la service minimum par exemple waa commerce bu ñu grève si DSI les internes sont ñu assurer la relève mm-hmm. dafa nekk en permanence wala di def ay garde et cetera donc interne bi taalibe boo xam ne day sàkku xam-xam waaye taalibe bu amul njëriñam askanam mm-hmm. ndax day yëngatu bu baax ci wàllu faj donte moom mu ngi nekk en spécialisation Euh, tey jii wax nga ko euh, suñu autorité yi tabax nañu ay hôpital yu mucc ayib def ci matériel médical mais yaa ngi koy wax sànq euh, ñaari hôpitaux rek lañ leen tabaxal ay logement muy eh, bu Dantec ak bu hôpital ah, bu bu bu hôpital bu Fann tey jii ndax jàppaloo ne priorité la ngir en cas ngir ñu gën a xoolaat seen dëkkuwaay d'autant plus que yéen da ngeen war a dëkk ci ci ci structure yi ngeen di servir. waaw ñun de wax dëgg yàlla li ñu gën a waroon mooy hôpital bu nekk ñu tabax fa logement pour interne yi loolu moom loolu moom mooy idéal mooy li war a nekk waaye euh, comme que loolu nekkul ñu jéem a def ay jéego ci loolu par exemple daral jàmm dalal jàmm hôpital boo xamante ne hôpital bu bees la récemment gis nga personnel Dantec bi sax ñu bëri yóbbu nañ leen daral jàmm mais dalal jàmm ni muy toll nii ak espace boobu noonu yëpp amul logement pour interne. Mm-hmm. te bëri na interne lool. Mm-hmm. donc interne yi des fois dañuy am sax ay problème logement mun nañ jóge fu sori transport beeg ak trafic bi. Mm-hmm. yooyu yëpp da indi ay sooxe ci ci ci seen wàllu formation ak ci seen liggéey. léegi nag Dantec boo gisee mu indi problème bi yëpp parce que Dantec Dantec c'est comme un sanctuaire. pour fajkat yi. Dantec lim doon accueillir ci interne benn hôpital daana ko woon accueillir ci interne. Dantec c'est la maison mère Dantec fa la spécialité yi presque yëpp nekk nekk daje presque je peux que neurochirurgie moo fa amul woon ak suma jumul ORL mais à part ça yeneen spécialiste yeneen spécialité yëpp am na Dantec Dantec les doyens de la faculté de médecine Dantec lañ nekkoon fa lañ nekk donc tey bu demee bay toj Dantec rek war nañ xam ne kon dina am ay répercussions yu yu métti non seulement ci kat yi fay nekk ak personnel bi mais tamit ci population parce que Dantec comme ni ma koy waxee hôpital social la woon. Mhm. Dantec daanaka tarifu Dantec moo gën a néew ci tarif yeneen hôpitaux yi boo mhm. demee je veux pas citer de am na hôpital yu bëri yi nga xamante ne daanaka ay semi privé la. Mhm. li ngay fay dafay cher mais Dantec tarif yi wàññi woon nañ ko. ba nga xamante ne booy fajoo di nga faju te doo am ay jafe-jafe yu bëri ci wàllu moyen des fois sax malade day ñëw du am moyen ñu defal ko ñi ñu ko war a defal. après mu dem wala ñu lijjanti ko ci ak service social bi bien vrai que hôpital yëpp am nañ service social mais ñu lijjanti ko ba nga xam ne malade day faju mm-hmm. génn ñibbi ci jàmm sans pour autant mu am yenn problème mm-hmm. léegi Dantec boobu nag interne yu bëri dañoo logé woon Dantec léegi ñun rafetlu nañu vraiment tabaxaat hôpital bi parce que hôpital bi ni mu meloon ñaaw na trop méngoowul ak turam parce que ku dégg Dantec day foog ne Dantec hôpital bu hôpital bu parce que daanaka ku ko dégg rek ci tur rek da nga naan hôpital boobu de hôpital xam naa hôpital niveau quatre la. Mhm. mais boo ñëwee Dantec ak cadre bi. architecture ak architecture bi mën nga décourager. Mhm. te pourtant ay fajkat yu yu yu yu kawe ñoo fa nekk ay professeurs yu yu yu kawe ñoo fa nekk boroom xam-xam yu màcc ñoo xam ne seen xam-xam màcc na lool ci seen wàllu liggéey ñoo fa nekk. Mhm. léegi kon bu ñu nee dañuy tabaxaat Dantec boobu ñun dañ ciy kontaan parce que loolu yàgg nañ ko bëgg. mais y a une manière de faire. Mm-hmm. hôpital bu mel ni Dantec ak personnel ba fa nekk nga xam ne ne rapport d'audit bi li mu génne y avait plus de mille cent euh, agents yoo xamante ne ñu ngi liggéey Dantec. Mm-hmm. plus de mille ak patients ya fa nekk ak archive parce que malade bu fa génn da ngay da ngay am sa dossier mu nekk ci archive yooyu noonu ñun étudiants yi dinañ ko soxla pour suñu ay wàllu thèse wàllu ay gëstu mm-hmm. suñu ay wàllu mémoire donc ku toj hôpital boobu war nga xalaat retombées yi anti def anticipation normalement li waroon nekk yoon mooy ñu utal ut benn plan de redéploiement ba pare utal interne yi fan la ñuy dëkk yaa ngi dégg ba pare doogu nag wax waxu toj ba du ñëw nag ci affaire de jaay parce que jaay une partie de l'hôpital pour tabax hôpital bi loolu je pense que Sénégalais yëpp rafetlu wuñ ko mm-hmm. parce que hôpital Dantec rëyul rëy boo xamante ne war nañ mën a jaay une partie pour tabax beneen ah, partie six hectares dong la mhm. loolu sax pour man dafa tuuti mhm. pour man sax dafa tuuti mais ñun rafetlu wuñu ñu jaay les trois hectares pour tabaxaat Dantec bi sur trois hectares mhm. loolu moom wax dëgg yàlla mënoon na ñàkk parce que coût je pense que c'est pas c'est pas trop cher ba état bi waru ko mun a supporté soixante milliards pour tabax hôpital vraiment pour man loolu jaay bi waroon na mën a ñàkk mais comme que loolu am na mais le minimum internet ya fay nekk mais nga bàyyi nga sóoraale ñoom seen seen seen seen formation te formation bi ni ma la koy waxee rek pour mu jaar yoon il faut que ñoom seen ay dëkkuwaay seen ay indemnité seen seen lekk seen naan yooyu nga assurer ko c'est le minimum seen bibliothèque ñun bibliothèque bi sax boolewuñ ko woon ci plan de redéploiement suñ suñu bibliothèque bi suñu bagage yi amuñu woon fa lañ ko def donc ñun ñoo jël bagage yi xooluñ ko séddoo yenn ñu indi ko faan noonu lañu mujjee def mm-hmm. te bibliothèque maanaam xam-xam la mm-hmm. suñu ay téere yu am solo ñoo nekkoon ci teg bi mm-hmm. loolu moom wax dëgg yàlla ñaawlu nañ ko trop ak accompagnement bi nga xamante ne waroon nañ ko accompagner personnel bi mm-hmm. mais spécifiquement tamit interne dañ dama je a dis ni dañu seetaan parce que li waroon am mooy interne yi am nañ association l' internat je rappelle que c' une grande institution internat du internat en activité kese du ñun ñuy kese mm-hmm. mais même les anciens même nos professeurs sax ñu ngi ci biir association bi donc institution bu ngand la mm-hmm. projet de démolution bii nii waruñ ko woon tëral te convoqué wuñ interne yi ci seen ay waxtaan mm-hmm. parce que ñun tamit quelquefois nous avons nos mots à dire am nañ suñu ay xalaat ak suñu ay xel yu rafet yoo xamante ne mun nañ ko partager ak askan bi te buñ ko partager ba def loolu noonu njëriñ kese moo ciy d'accord d'accord euh, Cheikh euh, Cheikh Fall docteur Cheikh Fall euh, dañuy xuus ci waxtaan wi sax abordé nga ko ci lépp lu jëm ci wàllum hôpital Aristide Le Dantec ginnaaw bi ñu dindee wala dañ ko war a defaraat moo moo tax le 14 août bi ñu génn ñu daal di ne dañuy tëj hôpital bi malade yu bëri nag ñu daal di leen yóbbu ñi moo xam Abass Ndao ñi moo xam hôpital principal ñi dalal jàmm ba ci hôpital yu yi sax daanaka am na ay malade yoo xamante ne yóbbu nañ leen fa ba moom moo waraloon sax ngeen amaloon ab sitting di wax que ne yéen soixante treize interne yi dañ leen laissé en rade ndax jël nañu ay mesures te jëluñu leen vraiment seen considération euh, par rapport ak seen besoin ak par rapport ak yi nga xamante ne moom mooy tax ngeen liggéey liggéey bu mucc ayib tey wax nga ko euh, euh, xanaa rek nga gën a ñu ci yaatu mu mel ni am na fu ñu dégg que fu ñu lii que situation bi décanté wu na mu mel ni eh, xamante ne yow yaa ñu ko gën a maîtriser tey bu ñuy wax kaawu euh, soixante treize interne des hôpitaux yi nekkoon ci hôpital Aristide Le Dantec lan mooy seen soox. waaw je pense que suñu soox moom li ñu li ñu li ñu naqari daanaka moo naqari bépp agent bu nekkoon Dantec moo naqari tamit population bi. Mm-hmm. lu ñëpp xam li gars di wax lu ñëpp xam loo ci wax mu doy. Mm-hmm. waaye dañuy leeral rek parce que leeral day am solo. Euh, interne yi nekkoon Dantec. comme ni ma ko waxee. bi ñuy toj hôpital bi convoqué wuñ leen ci ci benn réunion pour wax leen affaire yi comment ça se pour laaj leen seen avis redéploiement bi bi ñu waroon jiital dañ ko mujjee dañoo tëj ba génnee gars yi ba pare doog a xalaat nag fan lañ ñu war a mën a yóbbu ci kaw loolu ministère nag doon na def euh, doon na def benn liggéey ak chef de service yi pour wax leen ñoom ñu proposer fan lañ bëgg a yóbbu seen ay personnel après ñoom. ministère ñoom ñu valider génne ay notes d'affectation mais ñun li ñu seetlu mooy après bi ñu defee suñu communiqué ne dañuy def point de presse je pense la veille point de presse bi ci le ministère génnee ay notes d'affectation la veille mais li ñu seetlu mooy note d'affectation yooyu noonu maanaam on a fait fii carrément de l'objectif pédagogique de l'interne mm-hmm. interne ñu dañoo jël interne yi ñi ñu yóbbu leen jam ñaajo ñi ñu yóbbu leen abbas ndaw ñi ñu yóbbu leen ci ay centre de santé ñii ñu bëgg leen indi kudd te interne maanaam comme ni ma ko waxee sànq taalibe la dafa dafa nekk di jàng dafa am ay objectif yi nga xamante ne daf war a atteindre ci jàng bi dafa war a nekk fi nga xamante ne dina am ay universitaires yu fa nekk un prof agrégé wala des assistants wala sax ay ñoo xam ne ay supérieur am ay enseignants internes lañ ñoom dinañ ko mën a former mais dañoo note d'affectation dañu seetlu loolu asynchronisme bi am entre di prof yi proposé. Mm-hmm. nga xam ne interne yu bëri demoon nañ commencé sax di liggéey ba ci man mi euh, demoon nañ commencé di liggéey sans pour autant ñu am note d'affectation bu bu bu bu officielle. bu officielle léegi mais note d'affectation yi génn dafa waroo. dafa différent dafa différent trop par ak par rapport li nga xamante ne moom lañ envisagé woon. Mhm. wala moom la prof yi defoon proposition. Mhm. bon xam naa nag loolu diggante chef de service la ak ministère ñoom ils vont gérer mhm. mais loolu lañ njëkk a seetlu te loolu rafetlu wuñ ko torop moo tax envoyé nañ recours euh, ministère pour ñu changer seen note d'affectation yi. Euh, moo tax ñun association bi def nañ recours ministère pour ñu xoolaat. seen note d'affectation yooyu noonu. Mhm. def nañ proposition je pense contacter nañ aussi quelque professeurs pour ñoom ñu envoyer notre ministère pour que note d'affectation boobu noonu euh, mu mu mun a changer mu effective mu mun a changer mhm. Mhm. donc loolu benn la si beneen bi mooy internet génnee nañ leen utaluñ leen logement beneen bi ñu seetlu tamit mooy internet yi génnee nañ leen utaloon leen logement. Mhm. te encore pire hôpital bi sax daf ñu ameloon ay arriéré ci ay indemnité de logement transport ak ay garde mais heureusement après point de presse bi gars yi nañ ci ay liggéey ba instant yi ñoom ils sont à jour. Mhm. mais loolu warutoon am interne yi waruñu leen woon a génnee sans pour autant ñu utal leen ay fu ñu fu ñu fu ñu dëkk dëkkuwaayu ndege niku mhm. wala ñu jox leen nampaay. accompagnement pour ñu génn ut logement ñëpp xam nañ logement Dakar di mel c'est compliqué dégg nga c'est compliqué te lii tax mu gën a compliqué mooy seen note d'affectation yi ñu génnee donc bu ñu la jam ñaajo par exemple yow yaa ngi dëkk Dakar wala yaa ngi dëkk yaa ngi dëkk Thiès wala yaa ngi dëkk Saint-Louis nga ñëwoon loger Dantec ñu yóbbu la jam ñaajo accompagner wuñ la pour nga ut dëkkuwaay jam ñaajo mën a def sa liggéey correctement mm-hmm. du du sotti mm-hmm. donc loolu ñu ngi koy ñaawlu mhm. donc ministère ñun li ñu koy laaj li ñu koy demande mooy mu benn benn note bu officielle wax carrément interne dante ki ñoom naka lañ leen di jëlee en charge après lan mooy ndàmpaay yi ñun defoon nañ benn proposition ñoom ñeneen ñu ngi woon ci ay simulation seen simulation. seen proposition c'était quoi. c'était par rapport ak ndàmpaay au lieu que ñuy ut benn logement bu fixe interne yi dafa dëkk alors que dañ leen tasaare kii ñaajo kii Abass ndaw kii Dalal Jàmm par exemple. Mhm. mais ñu accompagner leen jox leen ay ay ay prime de logement mu leen joxee ay prime de logement proposé woon nañ benn somme léegi après ñoom ils prime de logement bi mun na régler la situation comme ni nga wax euh, proposé ngeen benn somme mun nañ ko valider un mois deux mois après ngeen euh, dawati ay arrière ndax yenn saa wax nga ko dañ leen xaw ay ay ay garde wala ay indemnité bu ngeen tamit euh, proposer ay prime de logement ndax c'est la solution idéale. waaw xam nga ndàmpaay moom buñ ko waxee mooy dommage am na ba pare. Mhm. buñ demee bay tudd ndàmpaay rek ça veut dire gaañu gaañu am na ba pare. gaañu gaañu mooy tëj nañ Dantec. Mhm. génnee nañ interne yi on tasaare nañ leen si yeneen hôpitaux yi. Mhm. yaa ngi dégg mais lu mënta ñàkk faaw mu am. donc ndàmpaay boobu mënta mënta ñàkk. c'est juste symbolique. ba pare dina mun a tax ñu étouffer problème yi gars yi avancer quoi. le temps euh, Dantec ñu koy ñu koy ñu koy tabaxaat. Mhm. mu mel ni docteur Cheikh a su ma la déggee eh, autorité yi dañuy def dañuy def lu ñu duppee la charrue avant les parce que euh, je m'explique mooy maanaam euh, jëluñu temps bi euh, wax. waxat à qui de droit xool les mesures d'accompagnement parce que yow nga wax ni mhm. euh, yóbbu nañ leen dalal jàmm ñi Abbas ñoo ñi keneen alors que euh, redéploiement bi ak ndàmpaay bi wax sax euh, par rapport ak mesure d'accompagnement bi maanaam li des dafa bari dafa mhm. sooxe ba ëpp mhm. c'est mooy li may wax rek gis nga gouverner c'est prévoir maanaam tey boo jiite dara il faut ngay anticiper sur les problèmes. daante comme que ñu ngi doon xalaat defaraat waroon nañ anticiper si diini yëpp mais defuñ ko. moo ko moo tax moo tax euh, problème yi yëpp am te bu ñu ni maanaam la prévention ça fait partie du traitement ça fait partie de du thérapeutique mm-hmm. maanaam euh, fagaru dafa bokk ci faju maanaam faju ci boppam. Mm-hmm. dur fajaru moo gën faju de mais fagaru ci faj la bokk. Mm-hmm. donc lii yëpp c'était prévisible mënoon nañ ko anticiper régler ko mm-hmm. yaa ngi dégg mais comme que béy wéy na mbuus li am am na ba pare donc on l'accepte et puis nañu avancer pour ñu avancer nag ministère bon il faut mu accompagner interne mm-hmm. accompagnement moom mënut a ñàkk il faut mu accompagner leen ci ay indemnité ci ay waaw ci ay logement et cetera mm-hmm. waaw ñun daal proposition boobu noonu la la la ñuy def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 ñu def émission bi te xam naa duñu wax ci lépp lu jëm ci wàllum hôpital dalal jàmm hôpital dalal jàmm wax nga ko hôpital bu mag la li muy dalal ci ay malade xam naa yaa ma ko gën a xam ndax foofu ngay servir mais tey boo ñu doon defal rek euh, hôpital euh, Dalal Jàmm en terme de euh, médecin en terme de spécialiste lan nga ñu ci mën a wax parce que dañuy wax ne hôpital bu mag la avec euh, matériel bi nga xamante ne c'est le matériel qui sied mais du ñàkk ñenn saay ñoo ñu ñu ñu ñu référé fa ay nit te ñu nekk non l'incapacité l'incapacité certainement d'apporter les soins tey boo ñu doon defal hôpital Dalal Jàmm tey benn diagnostic wala benn lecture comment est-ce que naka nga koy juger seen liggéey Euh, tey benn petite eh, benn petit état des lieux évaluation euh, par rapport ak euh, fi ngay servir muy hôpital Dalal Jàmm. waaw hôpital Dalal Jàmm moom hôpital boo bu bu bu yànj la boo xamante ne c'est un très bon cadre mm-hmm. de travail bon ça offre un très bon cadre de travail aux praticiens hospitaliers. Mm-hmm. nekk hôpital bi nga xamante ne fi mu nekk nii moom maanaam dafay ñëw ci ay patients mënuñ mënuñ mënuñu xayma lim bi parce que mm-hmm. bëri na. mooy li may wax rek euh, fermeture dentique bi day am ay répercussions sociales mm-hmm. donc bëri na patients yi nga xamante ne ñu ngi doon fajoo par exemple dentique ñoom ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw dalal jàmm d'autant plus que ak plan de redéploiement bi am na ay médecins yu bëri agent yu agent yu bëri yoo xamante ne ñoom ñu ngi dalal jàmm mm-hmm. donc ci wàllu personnel personnel dalal jàmm bi yokku na après fermeture de dentique mm-hmm. euh, malade yi fay fajoo tamit yokk nañ trop donc charge de travail bi c'est évident dafay yokk mais li ñu seetlu rek mooy dalal jàmm seen seen activité surtout wàllu côté chirurgie bi euh, bloc yi am na ay bloc yi nga xamante ne pareewul. Hmm. Euh, donc te bloc yooyu noonu je pense bu pareewul euh, ñu équipé ko yëpp dina gën a dina gën am njëriñ daal ci ci ci ci population bi parce que daanaka bloc urgence bi mooy mooy fonctionner service yi dañuy teg à tour de rôle. Hmm. te bloc yi yëpp bu pareewoon moom. donc activité opératoire yi dina gën a mën a dox euh, service ma nekk la mën wax par exemple réanimation def nañu extension léegi onze lits la mm-hmm. te onze li réanimation moom loolu c'est loolu c'est la loolu c'est bien quoi mm-hmm. onze lits réa moom c'est c'est bien mm-hmm. donc dara jàmm daal nañ nañ nañ nañ fexe matériel yi fa amul ñu def ko fa je pense récemment rek je pense prof euh, seen prof imagerie bi mu ngi doon am na ay ay ay besoins yu mu doon exprimer affaire yu noonu je pense yooyu noon yëpp bu ñu ko réglé gars yi dinañ gën a mën a liggéey quoi dinañ parce que Dala Jàmm c'est un bon cadre de travail donc reste à ce que ñu équipe matériel yi fa manqué ubbi bloc yëpp xam nga pour service di dox ndox ni war a mën a dox. à des autres structures ndax euh, jàppaloo le fait yenn matériels yi matewuñu am na yu matee ndax jàppaloo yenn matériels yi nga xamante ne matewuñu euh, mën na ralentir euh, liggéey bi. non dara jàmm seen liggéey ralentir dara jàmm ñu ngi liggéey normal H24. Mhm. comme yeneen hôpitaux yi rek am ah, parce que hôpital moom mooy seule structure mooy seul bërëbu liggéeykaay bi nga xamante ne duñu wàcc. Mhm. hôpital mooy bërëbu liggéeykaay bi nga xamante ne wàcc amul ci hôpital à tour de rôle rek la gars yi di fonctionner h hôpital bi donc ça roule. Mm-hmm. mais comme ni ñu koy waxee rek euh, yi même bu fa nekkee am na ay ay ay ay scanner rek am na ay yi nga soxla yëpp dafa amee maanaam yokk tamit du ci wàññi dara. Mm-hmm. parce que besoin bi day gën a bëri rek donc bu ñu fa mënee yokk ay matériel tamit donc ce serait bien donc c'est une bonne chose mais dalal jàmm moom bon liggéey bi taxawul waa ah, a yi ñu ngi liggéey normalement Euh, du ñu def euh, émission bi ba jeexal ko docteur Cheikh Fall euh, te waxuñu li nga xamante ne moom moo soxal actualité bi soxal lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram xam naa ne di ngay suivre actualité ak xanaa ubbi benn petite parenthèse rek par rapport ak incident bi amoon ci hôpitalu Kédougou bi suivre nga ko ba soxna soosu waroon mucc daal di génn àdduna moom ak njabootam boobu ba léegi nag way kër docteur yi décrété mouvement d'humeur dégg nga ko waa commerce def nañ fi quarante huit heures de grève association des gynécologues tamit yëngu yëngatu woon ñu SAMES aussi yëngatu woon nañu def quarante huit heures de grève euh, ba loolu noppee tin ñu def euh, soixante douze heures de grève euh, ndax jàpp nga ne saa yu ne rek waykur docteur yi dañu xaw a am ay jafe-jafe rek mesure bu mesure bi war rek mooy dem en mouvement d'humeur ndax war ñu am stratégie de négociation bu ñu nee grève dañu naan urgence rek la jël tey foo dugg ci yenn bërëbu fajukaay dañ la naan maa ngi fa secteur ba léegi amaana ma duñ déglu information ndax buñ ko doon déglu dinañ xam ne le personnel médical ñu ci bëri dañu grève mais da ngay jékki-jékki rek dem euh, ñu ne la tey bërëb bi liggéey bëgg ndax bu yenn jafe-jafe yi amee eh, du ñu xaw a toog def ay mesures de concertation waxtaan moo gën de prime abord rek ñuy décréter grève donte yenn saa ñu jàpp ne euh, dañuy def acharnement ci ci ci seen corporation acharnement c'est le mot que ñoom dañuy gën a farataal di utiliser. d'accord donc li xew récemment ci Kédougou. Mhm. je pense ñun ñëpp teelu nañ ko mais dañuy ñaawlu maanaam doxalin bi nga xamante ne benn média yi joué nañ ci seen partition parce que euh, ñoom ñooy ñoom ñooy jàllale information yi. et donc am na manière bi nga xamante ne buñ ko communiquer rek dañuy dramatiser cas bi beneen bi rôle bi mooy rôlu parquet mooy juridiction bi ñoom tamit seen taxawaay rafetlu wuñ ko parce que yow mënoo ñëw ñu ne mbir am na rek nga ñëw jàpp ni tëj sans pour autant nga def enquête préliminaire te ki ñu tëj c'est pas n'importe qui c'est gynécologue def na formation spécialité am ba pare ñëw di liggéey je pense que nit du def formation médicale avec des études spécialisées pendant treize ans wala lu ko ëpp ñëw pour nekk un assassin mm-hmm. erreur moom mun na am mm-hmm. erreur ñëpp koy def mais bu nekkoon erreur sax ñu wax ne dafa def erreur mm-hmm. mais koo xamante ne da doon faj dese am si mais le minimum des choses nga def enquête boo xamante ne tu convoques des experts. Mm ay gynécologue professeur gynécologue yu agréé parce que normalement kii dañuy am seen médecin légiste je crois que dañuy am ay médecin légiste yoo xam te ne bu kaa amee ñoom ñooy ñëw def seen contre expertise loolu mooy yoon léegi nag moom lañ ñu jël ak nit ki rek jàpp ko rek tëj def accusation bu monumentale homicide volontaire mhm. maanaam kii dafa maanaam moom moo ko tey daal ñëw pour rey nit ko alors que kii da def liggéeyam pour sauver nit ki lool dañ koy ñaaw mm-hmm. te Sénégal le parquet ak les médias ñu ngi dundal bet bi nga xamante ne bu màggee ci seen kaw lu jëm. Mm-hmm. mais docteur Fall dogguma la boobu ba léegi yéen a ngi wax euh, bu ngeen tiiree ci parquet bi wax ne dafa xaw ma lapsus la xaw ma dafa maîtriser wul. Euh, lan mooy involontaire ak euh, volontaire loolu moom du ma ci xuus ndaxte ñaari moo yooyu am na euh, c'est pas la même chose involontaire ak volontaire moom c'est pas la même chose mais boobu ba léegi yéen a ngi wax média bi média bi certes média bi mun na ci am rôle mais aussi dañuy dañuy nemmeeku ne euh, du côté donc des structures hospitalières yenn saa yi dañuy am jafe-jafe pour pour communiquer parce que yenn mots yi peut-être waruñu ko jël rek sans pour autant xam sa signification mais il information di wóor la personne ressource donc bu fekkee kooku jëlu pour moom mënu la gindi yow euh, c'est vrai que euh, def nga sa recoupement information woo nga ki nga war a woo mais bu fekkente ne kooku aussi réagiru yow li nga li nga disposé ci sa yox si loxo loolu ngay servir euh, askan wi mën nga juum te doo ko tey parce que euh, mot bi nga wax xamoo le sens ak fi nga ko war a utiliser donte bu fekkente ne def nga yow recoupement bi war mais ki nga war a jox ay édification édifié wu la yow tu ne sers que ce que tu as en main donc aussi ndax euh, tey ji jotul aussi le personnel médical mooy médecin bi mooy spécialiste mooy généraliste bi ñuy gën a euh, peut-être yaatal di di wax ak askan wi di jox la bonne information aux journalistes bu fekkente ne ñoom taskatu xibaar yi bien sûr dinañ dem à la ressource d' donc damay damay daaneel rek lim li mu doon wax sànq lu am lu am solo la parce que dafa am débat yi nga xamante ne waruñ ko nourrir waruñ waruñ sax fexe mu jëm kaw mm-hmm. lu mel ni discréditer un professionnel de santé parce que nit ki maanaam professionnel bi liggéeykat bi nga xamante ne xarañ na ci wàllu liggéeyam amul lu dul légitimité am mm-hmm. donc légitimité boobu noonu bu fekkee gars dañuy xeex pour bafouer ko après répercussions yi day am mais dama leen rappeler phénomène bi amoon na euh, Louga. Mhm. ñu jàpp ay ay ay ay sages-femmes tëj mais lan la indi après population bi dañuy ñëw hôpital ànd ak seen malade mais di yuuxu médecins yi. di di di leen manquer de respect. Mhm. di def lu leen neex. Mhm. te hôpital hôpital du bërëbu loolu médecin avant tout. ah médecin bi mun naa bañ am xaalis de waaye di nga dina gagné sa respect. am na xam-xamam. di nga ko respecté. Mhm. maanaam dignité am la am. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. loolu noonu nag ñun dañ dul nangu ñu koy salfaañe. parce que faj damay dañuy wax toujours que ni ba ci santé OMS ni mu ko définir lan la c'est un de bien-être c'est un de complet bien-être physique psychique et social. loolu mooy santé donc faj. nekkul kese joxe ay garab nekkul kese joxe ay garab mais nit ki dina ñëw faju si nga déglu ko rek mu wér léegi yow bu fekkee dañuy dañuy fexe ba réduire la dindi sa dindi sa légitimité ba nga xam ne yow nit nit ki sax dootu la déglooti mm. donc yow dootoo fajati kon dootoo fajati mm-hmm. donc il faut que lii nii que ça cesse lii na arrêté mm-hmm. loolu moo waral association yi def seen ay grève grève wuñ pour ay pour ay besoins personnels wala affaire yooyu dañuy grève pour pour le respect de la dignité du professionnel de santé santé bu jëyee amee ah nañ jaar fi ñu war a jaar def enquête yi ñu war a def mm-hmm. ba cerner situation bi après ñu ñu situer responsabilité ñu jël ay décision bu ci daan waree am ñu daan mm-hmm. mais lii dañuy wax ni na na na dakk parce que lii du yoon mm-hmm. te lii nii bu continuer mooy li ma la wax maanaam faj fajkat yi dootuñ fajati normalement mm-hmm. parce que ñi ñu war a faj duñ leen sax duñ leen sax déglu mm-hmm. duñ la sax considéré ba ba nga leen di faj te lool c'est très dangereux c'est très dangereux gars il faut qu'ils se ressaisissent s'ils sont une dent contre les professionnels de santé nañ jéem a jël dent ñu dindi ko wekk ko sànni loolu moom c'est le mot à dire. Mhm. par rapport a ça di di nag euh, euh, sympathiser ak euh, suñu collègues yooyu nga xamante ne tëjoon nañ leen. Mhm. ba libéré nañ leen mais sous contrôle judiciaire ñun nag nu nous avions demandé à travers nos communiqué qu'ils soient libérés mais sans condition. Mhm. sans condition et puis. même ñoom tamit affaire bi dina leen affecté kooku est-ce que dina mënati taxaw di opérer nit psychologiquement da koy déstabiliser psychologiquement da koy sonal donc nañ leen accompagner ah nañ il faut qu'il soit indemnisé mhm. parce que doo jël nit ki jàpp ko tëj koo xamante ne mosul xam kaso àdduna yëpp jàng la xam jàng di def liggéeyam sauver trois cent femmes ci bloc boobu noonu mhm. lii nii am te ministère de la santé publié na benn rapport bo xamante ne éclairé na lanterne bi yëpp si si si problème bi rapport bi lépp a ngi ci ah. bi ni mu ñëwee ñoom eh, procédures yi ñu waroon jaar yëpp fi ñu waroon jaar yëpp lañ jaar ils ont tout mis dedans donc maanaam dañ dañ ko jéem a sauver rek waaye dund ak dee ci loxo fajkat bi mu ci loxo borom voilà donc loolu daal lañuy lañuy lañuy wax na nit ñi respecter les professionnels de santé parce qu'on fait pas ses études pendant treize ans quatorze ans voire plus pour devenir un assassin. Mmh. waaw wax ngeen ci ci ci ci taskatu xibaar yi am na sax ñu ñu ñu ñu lii ay voix officielle euh, ci wàllum euh, association des des des des médecins médecins yu yu attitré sax. Mm-hmm. ay kàddu wax ne taskatu xibaar boo xamante ne wax nga loo warul wax euh, dinañ reporter plainte devant le procureur de la république bu dee yaa ngi déglu information aussi mais ndax loolu aussi du xaw a xajamal diggante bi ndax waruñu privilégier bon la communication au lieu que peut-être ñu ñu ñu ñu fëgg sur la table wax nga ko nit mooy mooy juum xëy na amaana ni taskati xibaar bi juumee eh, ba ba ba aller de la vérité médecin bi noonu la juumee peut-être ba waxuma cas bi de manière générale je veux ba yenn saa yi mu ba peut-être li mu def du ko def tey jii ndax euh, euh, bras de fer bi war am entre euh, les médias ak le personnel de santé ay agents de santé ndax dañu war a liggéey en convivialité. waaw donc man du wax sax bras de fer dafa am ah. bras de fer amul. dañu def juste benn réclamation dañu dañu dañu répondre ci benn xew-xew mhm. mooy benn mbir am na ñu def une communication mais communication boo xam ne ça incite à une haine communication bi nga xam ne day tax nit ñi maanaam dañuy dañuy dañuy am haine envers les les professionnels de santé ñun loolu noonu dañuy xeex mais xeex ñu journaliste yi mhm. au contraire parce que journaliste yi ñun dañ leen soxla dañ leen soxla dans la mesure où ñoom ñun suñu liggéey soxla nañ journaliste bu ko vulgariser gars xam ne Sénégal ils son très avancés ci wàllu faj c'est vrai que nous sommes dans le processus de l'émergence comme ni ñu koy waxee mais Sénégal boo xoolee li fi ñëw di fi jàng ni ñuy fajee bul xam nu tollu toll ci ay étudiants marocains ay ivoiriens les congolais ba daanaka pays sous-région bi yëpp ñu si bëri fii la ñuy jàngisee seen wàllu médecine mm-hmm. loolu noonu ñu dañuy soxla ko ko mais am nañ fi ay médecins yi nga xam ne dañu ay ils sont titrés ailleurs par exemple je peux citer professeur Daouda Ndiaye par exemple mm-hmm. liggéey bi muy def ci wàllu paludisme en nomination yi muy am ay Bill Gates compagnie et cetera mm-hmm. mais loolu c' est une bonne chose lu tax duñ ko vulgariser mm-hmm. la moo tax concours internat bu amee bu ñu proclamer résultat yi duñu duñu vulgariser loolu médias yi duñu wax ni par exemple parce que loolu noonu gis nga booy def une bonne publication ci ay gars yoo xam ne dañoo xarañ ci seen wàllu liggéey loolu encouragement la source de motivation la pour jeunes yi c'est comme concours général li muy amee ñu ne concours général ñi ñooy kii mooy meilleur élève du Sénégal mais loolu dañ ko war a def pour les internes aussi mm-hmm. di vulgariser loolu noonu ñu xam ne Sénégal ah de la matière grise te loolu c'est important c'est important non seulement pour population sénégalais yi nekk fii nga xam ne dinañ gëm jàng gëm suñu médecine bi gëm faju Sénégal mais aussi pour yeneen réew yi dinañ dinañ respecter à travers sax mm-hmm. ça nous fera un no nom. Mm-hmm. communication c'est bien mais il faut bien communiquer. Mm-hmm. te pour nga pour nga pour nga communiquer bu baax il faut aller vers la bonne information nga joxe la bonne information. il faut aller à la source. yu mel ni bu amatee ngelawaay journaliste yi. nañ interroger ñi ñu war a interroger parce que on peut pas donner la parole à tout le monde bu mbir amee ni ko benn auteur di waxee la parole de tous et la parole insignifiante de chacun bu mbir amee da ngay dem si ki nga war a laaj nga laaj ko mu wax la lim la war a wax loolu nga génnee mais pas nga ñëw nii rek def kii génnee loo xamante ne day def benn tollé médiatique mais après bu amee ay kii yow tu en es tenu pour responsable loolu kese la ñuy ñaawlu ñuy def communication bi ñu war a def aller à la bonne information génnee information bi authentique parce que journalisme également c'est à l'image de la santé c'est un métier qui est très sensible mm-hmm. c'est un métier très sensible mm-hmm. parce que nit ki wax na ba yeew boppam mm-hmm. te du wax ba tekki boppam Euh, ma ma ma dolli ci rek docteur Fall wax nga ko c'est bien ñu ñu ñu aller à la source mais euh, il faudrait aussi tamit nga reconnaître que ne yenn saa bu ñu joxee information bi ñu ñu delluwaat à la bonne source euh, bëri na ay taskati xibaar yoo xamante ne dañuy dem pour recouper information mais dañ leen dañ bu dee da ngay déglu actuel c'est pas pour personnaliser le débat c'est juste un un un fait qu'on en train de de de de commenter là il arrive que taskati xibaar jël Euh, chauffeur ñu yóbbu ko pour mu recouper information mais euh, da ngay dégg ñu naan nous avons été jetés comme des comme des comme des malpropres affaires yooyu ba yenn saa yi mu xaw am ay incident di nga dem ay structure hospitalière sax gars yi benn conférence de presse nga jël ay revendication du personnel administratif mais da ngay dem ci DG bi Euh, on est sur le terrain da ngay dem ba ci DG bi DG hôpital bi euh, pour nga recueillir moom sa version fekk administration bi la personnel bi ak le DG ñoo am divergence c'est juste benn exemple boo jëlee le personnel qui def qui fait des revendications équilibré bi daf lay wax pour nga dem ci DG bi mais boo demee ci DG bi il ferme la porte c'est juste un exemple donc ni muy amee ci entre personnel bi ak DG bi noonu lay amee aussi entre le journaliste ak ñi yor je ne dirai pas tout le monde am na ñoo xamante ne ils sont faciles d'accès dinañ la wax mais am na ñoo xamante ne dès que tu viens pour soutirer la bonne information ils te diront que yéen vous da ngeen bëgg a buzz wala da ngeen bëgg foofu aussi tamit euh, du bras de mais aussi des fois est-ce que jotul ñu ñu ñuy xaw a conciliant bu ñu waree wax ñu wax parce que wax la rek ñu joxe bonne information aussi. waaw xam nga loolu moom c'est c'est relatif. Mm-hmm. c'est relatif parce que am na ñoo xamante ne bu mbir amee duñ bëgg di gaaw a wax parce que souvent buñ gaaw a wax rek mën nañu wax ay erreur quoi souvent dañuy bëgg réfléchir bu baax ci li ñuy wax parce que boo occupé benn poste bu stratégique. Mm-hmm. waroo wax n'importe quoi mm-hmm. waroo wax n'importe waroo waxee tamit n'importe où donc di soñaat ñun praticiens yi rek que ñu gën a bàyyi xel volet communication parce que c'est bien nga nekk ku ku ku xarañ trop ci sa wàllu liggéey mm-hmm. mais sa te boobu noonu boo ko communiqué wul amul sens mm-hmm. c'est comme on dit on a de le dire rek un scientifique qui ne communique pas n'est pas connu mm-hmm. loolu la il faut que li ñuy liggéey ñu koy ñu Euh, docteur Cheikh Fall waxtaan wi am na solo donte boobu ba léegi nag nanguwuloo reconnaître que ñun taskatu xibaar yi dañuy dem à la source mais des fois on nous ferme carrément les portes et puis et pas trop souvent avec la manière mooy bon ku nekk ak ak fi ngay fi ngay liggéeyee euh, mais mu mel ni li ñu tëraloon ci waxtu wi yegg nañ ca xanaa rek bu dekkente ne am na loo bëgg yokku ci lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe ak euh, naka nga gisee avenir u internet des hôpitaux. waaw di di waxal ñun ak journaliste yi moom je pense que amuñu amuñu combat quoi amuñu bras de fer on est ensemble. le message est clair. voilà léegi fi ma bëggoon jeexalee rek te mu amal ma njëriñ trop trop trop mooy interne yi seen ay jafe-jafe. interne yi ba tey amuñu statut bu leer kenn xam jàppee kenn xamul ba xam étudiant lañ la jàppee wala un spécialiste. wala un mhm. fonctionnaire. Mhm. le statut de l'interne n'est pas encore défini. Mhm. te loolu day feeñ ba ci bu bu problème amee des fois ministère mu comme li xew ni rek day jël benn note déployer redéployer interne yi fu leen fu ko neexa ah. amuñu mais tey par exemple bu bu bu bu révision amee ci benn domaine par exemple ay ay ay ñuy yokk ay indemnité par exemple wala ñuy revoir euh, salaire u médecins yi les médecins les internes sont exclus ah. juste pour wax ni statut de l'interne c'est pas encore défini mhm. te loolu il faut ñu définir ko il faut ñu wax ñu lan ñu jàppee parce que on peut pas tamit nga réussir concours interna nga am sa ay matricule ak yëpp mais tu n'es pas un, un fonctionnaire tu n'es pas un agent de la fonction publique mhm. Mhm. nga pare sa internat ni ñu formé la état du Sénégal formé la nga nekk un spécialiste plein mais sa recrutement moom c'est aléatoire c'est pas systématique mais recrutement systématique dafa war a am pour interne yi je pense que ENA du former ay administrateur ba pare sànni leen ñu dem mm-hmm. après naan leen da ngeen di bind ay demande pour ñu recruter leen mm-hmm. c'est pas c'est pas logique mm-hmm. c'est pas logique yi il faut qu'il revoie ça c'est très précaire c'est dérisoire je pense ministère de la santé ñoom xam nañ bu baax ñoom li ñuy wax donc internes yi seen statut ak seen insertion loolu c'est un problème te duñ ko waxtaanee te buñ ko waxtaanee duñ ko mun a faj mais il faut que gars yi gars yi xoolaat loolu statuer interne bi moom mooy kan ba pare insertion systématique dans la fonction publique loolu c'est quelque chose bu ñuy bu ñuy réclamer bu ñuy réclamer donc foofu laa bëggoon tëjee di wax ni nañ bàyyi xel nii que internat avenir internat il faut ñu bàyyi ko xel mm-hmm. daante teñ nañ ko nii mais maa ngi woo ministère de la santé Euh, mu mu mu mu bàyyi xel tamit concours internat bi di ñëw mm-hmm. ak postu yi choix des postu yi nu muy demee waa ba xam dañuy créé waat ay postu si yeneen hôpitaux yi tasaare poste yi ci région yi et cetera mm-hmm. loolu yëpp dèjà présent lañ ci lañ ci war a liggéey mm-hmm. waruñu xaar ba décembre jot xa euh, euh, ñu recruter interne yi ba pare après di xalaat fan nañ leen war a mën a mën a gaze mën a duggee donc dès à présent il faut ñu commencer di bàyyi xel si loolu euh, di rafetlu tamit bu baax taxawaayu ministère ci xew-xew bi nga xamante ne am na ci euh, euh, rapport bi mu publier ak étude bi nga xamante ne mën na ko mm-hmm. audit bi nga xam ne def na ko ak ay mm-hmm. expert mm-hmm. ba leeral mbir yi nan la demee waaye tamit di ñaawlu procureur bi taxawaay bi mu ci am ak média yi peut-être ampleur ko jox di wax ni maanaam Sénégal amul lu dul lu dul askanam mm-hmm. amul lu dul ndawam mm-hmm. ñun nag ay ndaw lañ ci ndawu Sénégal yi di nekk ay taalibe bi nekk au service population bi parce que un médecin c'est un homme de tenue c'est vrai que la tenue est blanche mais c'est une tenue quand même mm-hmm. homme de tenue lañ donc on est pour askan bi lu ñuy jàng ak lu ñuy liggéey suñu ay garde et cetera loolu yëpp c'est au service des populations population bi il faut ñoom ñu xam loolu ñu joxaat ñu suñu gëdd xam ni maanaam xam-xam baa ngi fi bëgg baa ngi fi reste que ñu organiser terrain bi et puis faj bi mun a a jëm kanam di rafetlu bu baax euh, émission bi di la jaajëfal merci beaucoup. Euh, sant ko gërëm ko moom docteur Cheikh Fall euh, ma fàttali ni moom moo doon suñu invité si suñu émission bi di SOS santé docteur Cheikh Fall nag nekk interne des hôpitaux en anesthésie réanimation waaye tamit nekk secrétaire général de l'association des internes et anciens internes du Sénégal fàttali na yéen doon déglu seen émission bi di SOS santé. Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir si nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité